mais di di am euh, yàqin ni am na xel mu dal bi mu fekkee Bamba mhm. li tax ma am xel mu dal mooy ni c'est la corporation qui est aujourd'hui euh, attaquée Bamba wax na ko c'est pas une question de agression c'est une tentative d'assassinat mhm. te tentative d'assassinat amul beneen tour mooy dañoo bëgg rey nit kan lañ bëgg rey ku bokk ci ñun taximaan yi bu amee ku leen agressé ci tali bi taximaan ay taxaw. c'est vrai. Jakarta chaque jour mu am accident Jakarta maan ay taxaw. Mm-hmm. suñu corporation bu ci amee kenn ku ñu xuri ñëpp war a taxaw mooy sama ñëw. Mm-hmm. parce que d'abord c'est une sœur qui a beaucoup de respect d'amitié d'amour pour moi ni nga nekkee sama rak ni kii nekkee sama sama mbokk. Mm-hmm. c'est la moindre des choses groupe de presse bu amee situation bu fa am ñu taxaw fa ba démb gis nañ taxawaay bi am buntu Walfadjri mhm. lii moo raw xamul tax nul n'est aujourd'hui couvert nul n'est aujourd'hui en sécurité mhm. dans notre corporation les menaces avaient démarré les invectives dans les réseaux sociaux on laisse passer depuis un certain temps fii amul ku ci dul wax dara ci télévision wala ci rajo boo ubbee réseaux sociaux saagawuñu la ndey wala ñu saaga la bàyyi. Mm-hmm. dañoo gën ndey wala ñu gën ñu bàyyi. est-ce que kiy jël paakaam di jam nit daf ko gën kooku ka ko yónni parce que je parle de commanditaire parce que man jàpp naa ne ce n'est pas un kidam sorti de nulle part qui vient pour régler un compte non mm c'est pas ku ñu xamul comme ni ko Bamba waxee dina am euh, ñu ci yëngu procureur rek police gendarmerie xarala nañu mm-hmm. suffisamment mais bu ñu yem ci mbirum Maïmouna Ndour Faye mhm. qu'on remonte à beaucoup plus loin je le dis tout le temps depuis quelques jours on nous parle de loi d'amnistie ñaata nit la ñu faat ak balu fetal gisaguñu ku leen ku ko ku ko rey mhm. impunité boobu bu ñu ko continuer taxawuñu ci cas bii nii bu ñu continuer impunité impunité boobu demain ça peut être moi mhm. ça peut être Bamba ça peut être toi doo xamee ni li naan yàlla du la du la suturaal ndax kii yàlla moo ko moo ko aaral boppam ndax sinon mu demoon lu gënoon sori. c'est mais sant suñu borom bi nga xamee ne fi la yam di ñaan nag euh, déjà di masawu pas le groupe mais toute la corporation. Mm corporation bi yëpp lay masawu au nom du groupe Leral pour vous dire que nous sommes dans ce métier nous resterons dans ce métier et je le disais il a un instant non on n'a pas peur. Mm-hmm. non vous n'allez pas casser notre plume non. vous n'allez pas nous mettre une euh, un scotch autour de la bouche pour nous dire ne parlez pas vous n'allez pas nous fixer des œillères pour nous dire fii ngeen di xool wala fii ngeen di waxee mhm. déedéet agressé ñu euh, rey ñu xoqatal ñu tax métier bi di continuer te il faudrait que les gens qui le qui qui qui sont dans cette dans cette campagne là mhm. ñu mën ko xam ragaluñu tiituñu dama bëgg loolu leer. moom mooy wax on de la presse de la. corporation dal na sunu kaw. ragaluñu mais du tax ñu taxaw ci li. ragaluñu benn yoon tiituñu. Hmm.